jërë ngeen jëf Guy Marius Sagna ak compagnie mu di ñoom Assane Diouf Clédor tey jii ca la janoo ak doyen di si Samba l'observateur moo ko bind ba wax ñu waxtu wan la war doon 10 ci yoor yoor gi yéenekaay bi nee nañu ca lay door altine ñaar fukki fan ñaar ak talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ca la leen téye woon mandat dépôt woon leen ndax tuumay tuur bale ordre public bi ak i nasi pexe yoo xam ne mën naa joo réewum Adji Sarr ak Ousmane Sonko seen audition tey jii ci lay tàmbali mu di Guy Marius Sagna di Assane Diouf di Clédor Sène Birame Souleye Diop ak Abbas Fall lii quotidien nañu ñoom tey jii ci la ñuy gisee ak doyen des juges waaye jege nañu lool ab liberté provisoire enquête dina moom it xëyi xibaar bi mu di ñoom Guy Marius Sagna daanaka léegi tey ñu génne ci kaso bi Ousmane Sonko moom loolu observateur xëy génne ci xëtamu njëkk boole ko ki di jàngat aw doxalinam yéene ne la mu ca nag mu di dem di seeti ay politiciens yu fi nekkoon loolee mu indi jaaxle jaaxal ñu bari ci nit ku ne dafa bëgg a soppi système bi système démocratique bi ci réew mi Le Quotidien bind na ne Macky ak ñi mu àndal ñu di waa Benno Bokk Yaakaar bëgguñu kenn di ci sensé lu toll ne tarfatal ay ni journal bi xamal ñu ne lu jege ñaari semaine ginnaaw li fi xewoon mu di fitna ju amoon ci réew mi ba ay bakkan rot ci keroog samedi leader yu Benno Bokk Yaakaar yi daje nañu ci njiital seen mu di président Macky Sall la ñu tënke ca ndaje moo di danañu booloo taxaw doon jënn jëm ngir défendre république bi défendre nation défendre askan wi Moussa Tine jiital alliance démocratique penco bokkit ci coalition taxawu Sénégal di ñuy wax ci xët mu njëkk vox populi ne ñi ci nguur gi mu di ñi ci pouvoir bi tekkiwuñu benn yoon seen ngemb dañu ko yorama rek ci defarwaat ca la nekk waaye yàggam-yàggam dañuy dellu siwaat ministre Abdoulaye Sow di xamle ci xët mu njëkk Les Échos ne du fi amaat ku ñu dóor danañu fayu duñu toogati mukk di faste suñuy loxo ci jamono jooje fitna dafa yokk fitna la tribune ñu teg na ci joxe xalaatam defi proposition ci nan la def ba wutal jeunes ci réew mi emploi mu di am xëy ak ñetti téeméeri milliards juróom fukk yi président Macky Sall fas yéene dugal ci wàll woowee ci weneen wàll journal Les Échos mi ngi ñuy wax ne wax ji ñaar la nañu waa APR waneeti nañu seen bopp ci meeting bu ñu doon def démb ci Pikine yëf ya dafa far sax mujjoon jaxasoo ba amoon fa ay responsable yi benno bokk yaakaar la seen benno gi ñu bëggoon a woote démb moo far mujj ci fitna ay kurpañ tàkk na fa ay pompe génn na fa ay xeer ak i lu nekk gaa sànnante nañu ko fa ba am ñetti nit yu ca jëlee gaañu-gaañu ba mujjee l'hôpital lépp nag doonoon ci teewaayu ministre Abdou Karim Sall Awa Niang Pape Gorgui Ndong Daouda Ndiaye ak maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo mi nga xam ne moom bi fitna ji tàmbalee jolli ca la ko rocc rawale ko la sinekaay a gisee di waxtaan ak i si pexe fas yéene taxawal cadre bu mag ci seen biir vox populi nañu grand cadre d'unité d'action noonee la ko bëgg a li ñuy wut moo di doole ju ñu mën jàmmarloo ak Macky Sall nguuram moom président Macky Sall l'observateur nañu bijoutier yi ci réew mi ñoo ngi koy fàttali seen bopp ubbil yéenekaay bi association nationale des bijoutiers du Sénégal ñoo doon daje ci week bi fa la waxee coono bi ñuy dund ci fisc Macky Sall dane woon or bi jógee ca Sabadola danañu fexe ba am luy des ci réew mi ngir bijoutier réew mi am lu ñu mën di liggéeyee Ibrahima Niang mi jiite association gi leen jaboote ñoom bijoutier Sénégal yi ne ñu bi président Macky Sall waxee loolee ak léegi ñoom dara lañu ci gisagul